jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fi nga xam ni foofu lañ leen di nuyoo saa su nekk mbokk yi ñu ngi fi nga xamante nii rek moom mooy sali sali Saly daal ñëw seet si un grand champion su ma ko waxee rek xel am ci ku mu daj kooku moom mooy Ousmane Gandigal bi nga xamante ni moom mooy waree fii ci Gandigal bu ngeen gisee fii ma taxaw tey ji ngeen xam ni euh, làmb moom mooy moo ko waral. mu nekk salle bu nga xamante si ni salle euh, sport la ñu war fee seet rek euh, Ousmane Gandigal war a séq ak moom li nga xamante si nii moom mooy ay laaj ak i tontu waaye topp ko ni nga xamante si nii noonu lay entraîné entraîné bu nekkee fi nga xamante si nii moom mooy salle euh, yan yan xeetu musculation lay jël mbokk yi xam naa ni duma ma guddal. damay wàcce rek suma ay kàddu ànd ak yéen ànd ak sama caméraman yi ñu dugg ci biir saal bi eh, gé loxati Ousmane Gandigal xool naka la nekkee ci biir saal bi ak lan lay liggéey bu ko defee ñu tegal leen ko yéen ñëpp ngeen jàkkaarloo ak moom mbokk yi jërë ngeen jëf ñu topp moom ma dem ci biir teew mbokk yi ni ñu leen ko waxee rek ñi ngi fi nga xam ne moom mooy Saly seet si champion bu mag euh, bi nga xamante si nii moom lañu fekk si fii euh, muy Gandigal euh, ni leen ko waxee rek ni leen ko toppal ba ci biir salle bi ni nga xam ne noonu lay liggéey fii ci saal bi dañu koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateurs yi bu ko defee rek mu seex ak moom ay ay baat ak ay tontu Ousmane ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. ginnaaw bu ma sant yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala di gërëm sama ñaari waajur di leen gërëm it di leen sant yéen journalistes yi déplacement bi ngeen def Thiès ba fii Gandigal ñëw seet sama maa ngi leen si sant bu baax a baax di leen gërëm voilà. Euh, ñu fekk la fi nga xamante si nii moom mooy salle entraînement bi mu mel nii fi nga njëkkee wala da nga am foo jaar doog a ñëw fii. waaw maa ngi njëkke contact contact laa jógee dama jóge contact après ñëw salle bi fii. pour préparer sama combat parce que combat bi dafa ma am fu ma war a yóbbu dafa amit li ma war a confirmer waat biir kees parce que su may supporter dañ maa yónni yàkkamti ma donc ñoo tax may reyante pour yàlla defal ma ndam te maa ngi koy ñaan yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala mu dara tewul ni ma daan siggale Thiès di ma fa may ndam combat bii mu gën a oyof lool te jig ma si barke Cheikhou Tidiane. dinañu xóotal tuuti ci laaj waaye mu mel ni kon ñaari séance laa dégg ni moom ngay def moom nga def euh, contact ak salle. waaw ñaari séance laay def chaque jour depuis combat ba tey ñaari séance des fois trois séances tey sama coach sax moo fi newul box bi mais kon dañ doon takk gant def box mais dafa am dafa génn quoi moo tax new fi mais dañ doon def presque trois séances dañuy def contact def misculation def euh, box voilà. dayoo combat bi moom moo toll noonu wala naturellement noonu ngay noonu ngay liggéey waaw man bu dul combat moom benn séance laay dóor waaw benn séance kese bu dul combat benn séance pour euh, téye sama forme mais bu dee combat moom dañuy dóor trois séances waaw noonu la ñuy préparer. Euh, euh, mu mel ni yaa ngi daj ay coono yu méttee méttee métti waaye da nga am loo brose ci sa biir wax mooy combat bi dafa am foo xam ni foofu la ma mën a yóbbu fan la la combat bi mën a yóbbu. waaw combat bi fu ma mën a yóbbu bëri na mooy li ma la wax rek gën a confirmer roi bi may wax biir kees. di nuyu waa Cité di nuy waa Robina Bagaar di nuy waa Thiès yëpp di nuy sama yaay fa ne sama papa yi sama mbokk yi sama xarit yi sama mag yi fa nekk sama doom baay yëpp su ma limee jummee maa ngi nuyu ñëpp di leen woo le 29 muy dimanche bi di ñëw di woo sama supporters yi nekk biir Thiès yëpp ba min na faal maa ngi woo sama supporters yi nekk foofu yëpp ñi ñëw incha allah soutenir ma ma daan booy jaxaaw ñu ko wax Kéba Fall ma daan ko jël bu rëy bu gaaw bu oyof lool ci kàttanu yàlla. Ousmane mu mel ni sa biir communication tey dafa am benn weccet buñ ci seetlu muy muy changement euh, yaa ngi wax booy jaxaw Kéba Fall mu mel ni ay ay ay ay toj bopp booy jaxaw nga ci jublu keroog it nga ni ko am na ñu may woo ñoo xam ne ca koñ ba la ñu jóge mu mel ni da nga bëgg a jaxase xelu booy jaxaw wala lu xew. non du ma jaxase koñam man. xelam xelam laa du ma jaxase xelam xam nga lu ma la xam nga tey man mbër boo daan dina bëgg moroom wala am na mbër yoo xam ne tey ñu ngi taxaw pour ma daan Boy Jaxaaw ñooñu taxaw ne jox leen Ousmane Gandigal léegi nag ñooñu noonu ñu ngi may woo di ma lii booy bi lee booy bi lee boo bëggee lii boo bëggee lee non du jaxase ay xel li ma koy xam na ko moom bu baax a baax. ah booy est-ce que ceeñcoo mayen booy bi rek. pour bëgg dox ci mayenam noonu. non man yooyu du mbir man du ma ceeñc ay mayen ak yooyu noonu man loolu du samay mbir waaw loolu samay mbir. mais combat bu nekk nag am nga ko Thiès nag bu waxantee dëgg mais combat bu bu ni mel. ah Ousmane nag yaa ngi koy soog am Thiès. waaw man combat yëpp laay pare combat yëpp amul bu ndaw amul bu mag amul bu rëy man yàlla dogal na ba ma daree mbapat ba tey bu may mbapat yi sax dama koy préparé bu baax waaw waajal ko comme ni ma ko war a waajalee yokk samay dem samay nit ñu ñaanal ma ñii ma war a jàppale jàppale ma ma dem yàlla may ma ndam ma jaaraat fi ma jaaroo nit di nuyu waa Tiwaawan yëpp waa Tiwaawan nuyu sama nijaay sonn na si combat di ñaanal sama yaay Fatim fay yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana te yor fa su ko am fa laa jógee barki démb Tiwaawan di nuyu waa baax conscription foofu sa Tiwaawan Talla ak jantal Mara ko maa ngi leen di siyaare bu baax ak sama yaay bu fa nekk bu jigéen boobu. maa ngi leen di bëre bu baax a baax. mu mel ni mbër mi nga am tey booy jaxaw muy bagarreur euh, di bërekat te wax dëgg yàlla du ñeexu ñebem kenn lan nga koy wax. waaw déggoo li ma la wax ko xam nga ko si bu ñëwee ci làmb ji dina bàkk mu neex bu ñëwee ci làmb ji dina bëre mu neex bu ñëwee ci làmb ji dina xeex mu neex dañuy santal yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak xel ak xalaat bu ñuy tax ñu jëfe loolu kon dañu ciy sant yàlla bu baax a baax. su la booy jaxaa woowee ci xeex fital jixaar ni la kaay ñu rayante nooy def. man du ma dellu ginnaaw xeex moo ma gënal kaay lekk ndax ay jamono ba may nekk xale boo xoolee sama mag yi fi nekk wala sama yaay wala sama tante yi man dama lëjoon jamono yi may jàng dama daan ko ci élèves yi. ne leen tey kenn du jàngi lu toll ci vingt wala trente élèves man mii kese ma ko ci leen ne leen kenn du jàngi kon donc tey jii fit boobu ak jom jooju ma màggawaale kon yaakaar naa ne du ma jàkkaarloo sama moroomu gor di dellu ginnaaw. Hmm. moo tax daal nga gis ni si la woowee ci xeex nga wuy nga nga wuy ko mu mel ni mag ak xale ñoom ñooy bëre mbaa du indi benn jafe-jafe ci sa diggante ak moom. non man aw làmb ji aw ma benn jafe-jafe bu ma ciy xalaat bu bëggee ñu bëre bu bëggee ñu xeex si kàttanu yàlla xeex la bëgg. incha allah nañu maye 15 minutes ñu xool xeex bi naka lay mujjee bu 15 minutes jàllee bu boobaa ñu door a samp bëre loolu kese laa koy wax loolu lu Cees waaw. lu la ci woo daal nga wuy ko ci. bu ma wooyee bëre ma wuy ko ci bëre bu ma wooyee xeex ma wuy ko ci xeex mais xeex bi moom na xam ne dina ñam sax ba pare balaa ñuy bëre. Ousmane moom nee na yaa mag fuuf. Euh, bu ngeen xeexee xeex bu métti tamit mag ak gone mbaa du am nu mu du féete wat féete bor. waaw damay sant yàlla bu baax ba nga xamante ne tey ji yàlla mu may may kattan ak jom ba may dajeeg samay anniversaire ñu naan man maa leen mag loolu damay si sant yàlla bu baax. bu bës baa daal incha allah ni ma ko wane magee ma wane ko xel moom rek daan ko ko si kàttanu yàlla. léegi nag euh, dañoo bëgg rek euh, nga def benn message boo xamante ni lu jiitu ngay woo ñi ngay woo ak ñi lay jàppale muy message su paix parce que làmb ji euh, ministre Yankhoba Diattara la ñu ko tuddee mais euh, Sidi dafa wax ni euh, li nga xam ne mooy temu làmb ji mooy woo jeunesse bi ci jàmm ak salaam ban message ngay woo ci ci sànni lancé jeunesse bi. waaw message bi may lancé mooy samay ñi nga xamante ne dañ may jàppale diwoo woo président Amadou Sow Guillaume Sessindia maa ngi koy woo si bés bi mu jàppale ma bu baax a baax a baax Amadou Sow Guillaume di woo suñu maire monsieur le maire Thierno Diagne sa Gandigal ak euh, Cheikh Dione ak sama papa Cheikh Ndiaye paabaas sama papa Daouda Ndiaye sama papa Ibrahima Ndiaye sama papa Ousmane Ndiaye sama papa Pa Baas di woo sama yaay bu baax Yaanda Ndiaye ca Gandigal maa ngi leen di woo si bës bi ñu jàppale ma di woo Saade bu siis Ngaparu di woo monsieur la maire Ngaparu Mamadou Mbeng maa ngi koy woo si bës bi di woo waa Ngaparu yëpp ñu ñëw soutenir ba jàppale ma si bés bi mu daan kee baafaal jël bu rëy incha allah. di woo monsieur le maire Ousmane sa sali di woo Cheikh Issa Sall Ngaparou fee Mbour Cheikh Issa Sall sa Mbour monsieur le maire Cheikh Issa maa lay woo bu baax a baax a baax di woo sama rak sama xarit Sangue Dieng Sangue maa ngi koy woo si bés bi pour mu jàppale ma si kombaa bi waaw. ma euh, euh, woote bi euh, moom nga jiital paix bi laa wax jàmm ji pour xale yi ñëw ci jàmm dem ci jàmm. waaw li ma lay wax rek mooy. ñun ku ñu xam-xam ñu si discipline di ñaax euh, di Diakhaté na gën a renforcer sécurité bi parce que supporters yi si bëri dañu ragal ndax la amoon bi passé mu bañ amaat ñu ngi lancé Sidi Diakhaté mu renforcer sécurité bi di wax adversaire bi may bëreel Kéba Fall boo jaxaaw mu ñaax ay supporters am ñu ñëw si discipline parce que signature bi passé gis nga nu mu demee ñuy nekk foofu xam nga di yuuxoo yooyu noonu amul sens gis nga mbër boo koy jàppale da ngay ñëw wane fulla ak fayda ak discipline toog si kaw tribune bi yor sa kurus ñaanal ko yàlla mu daan loolu mooy discipline su amee ndam ngeen ànd dem bége su amee safaan it ngeen ànd dem bége parce que loolu mooy àdduna ñaar moo fi ne am mbaa ñàkk bu la yàlla mayee jëlal nga dem sante ko yàlla bu baax mais bu la yàlla xañee it jëlal nga sant ko it yàlla bu baax nga dem voilà. Ousmane ñu ngi lay jaajëfal bu fekkee ni amul leen loo ciy dolli eh, ca bokk dollil mu lu des. Euh, di sant waa Gandigal yëpp di leen woo si bés bi waa sali di leen woo si bës bi waa Mbour sama mag Bombardier maa ngi lay woo Pape Moussa Loos di woo waa Saly yëpp di woo waa Ngaparou bàyyi ma kenn di woo waa Géerow di woo waa Ndayaan di woo waa Popenguine di woo waa Sinja. di woo waa di woo waa campement ngee ko wax waa Ngëriñ waa Sinthiane waa Njorox ñëpp maa ngi leen woo waa Malicounda Ngëriñ waa Malicounda Nguuxuj xam nga tund bi daal yëpp maa ngi leen di woo si bés bi bàyyiwuma kenn di leen wax waa woo di woo mafia bi croisement Saly xam nga suma gars yi di gërëm sama boos bi may liggéeyal. maanaam di woo boos yi nga xamante ne ñu ngi may jàppale si ko mbaa bi ku ci mel ni David Diallo xam nga maa ngi koy woo si bés bi. di woo autorités yi daal yëpp waaw di woo Pape Diagne Sali Pape jaañ responsable politique bu mag maa ngi koy woo bu baax si bés bi di woo di woo kii euh, nu mu tudd politicien bi nekk Sali waaw moom kilifa la bu maax bu mag fii Sali moom maa ngi koy woo si bës bi maa ngi woo ñëpp daal xaj na peut-être action bi moo demee noonu su ma limee damay juum xam nga mais di woo mobilisation bi di wax samay supporters di wax samay supporters. ñu teel a ñëw 7 si kàttanu yàlla nañu ñëw Gandigaal fépp foo xamante ni sama supporter nga fa 7 heures wala 8 heures pile na la fa fekk ndekki yaa nga fa añ yaa nga fa boisson yeeg lépp dara du manqué si kàttanu yàlla comme ni ñu ko daan defee. ñu dugg si biis yi dugg si kaar yi wu dem feesal stade bi yëngal tribune bi xam nga ñu yëngal si kaw ma yëngal si suuf di woo sama waa écrit Grand Yoff mbooloo di wax sama père Soudou maa ngi koy gërëm bu baax coach sama ancien coach père Aymilu maa ngi koy gërëm bu baax. di nuyu suñu président écrit di nuyu sama doom day sarko di ko ñaanal yàlla ndam li yal na ko jik moo bàyyi ma njoon di woo écrit bi yëpp bàyyi ma kenn Grand Yoff mbooloo di gërëm waa sama waa kër waa Ndioufène waaw euh, zone 7B Grand Yoff yëpp maa ngi leen di bëggee di leen gërëm waaw. Thiès damay dugg Thiès di woo kenn ci man taalibe Serigne Babacar borom maanaam na lañ koy sax ndax euh, Habib moom su ma koy sant. du ma du ma du ma pare duma ma it ci moom ndax dañoo bokk tarixa gëm li ñu doon muy Serigne Babacar Sy taaliba cheikh bi Habib kan maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax combat bi gis naa taxawu bi gis naa jàppale bi Habib kan di liggéey social biir kees may may ay ticket may may tiset may may kaar c'est la première fois mu am ko biir kees muy Habib kan maa ngi sant Habib Kane di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm sama grand yi nekk États-Unis France Amérique New York képp koo xamante ni suma mbokk nga nekk sa kaw su ma limee sa tur damay juum maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm. waaw di woo nag hmm? euh, pré kii ministre euh, Diatara maa ngi lay woo si bés bi man général Gandigal Ousmane Gandigal maa ngi lay woo si bés bi. nga jàppale ma ci bés bi bu baax a baax a baax a baax tiset yi ñu ngi fi mais billets yi nag ñoo des bëgg naa nga jëndal ma cinq talons wala quatre talons minimum waaw presque sax Habib kan jënd na lépp mais defar sa participation wa waaw. jaajëfal nañ la Ousmane. waaw sant yàlla julliwaat si yonent bi gërëm sama ñaari waajur di nuyu nag waa salle bi xaaral nga jël euh, benn interview parce que Eric fii may entraîné fayu ma dara. gratuite lañ ma ko defal heure bu ma neex ñëw heure bu ma neex dem Eric maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm coach si nekk si salle bi yëpp su ma limee damay juum waa coach yaa ngi nii moom coachukaay si mu ngi nii moom dina ma gëral ma Eric si français parce que dégguma français mu gërëmal ma Eric bu baax coach aca bismillah je euh, remercie Voilà, euh, donc euh, je disais qu'il remerciait le, le, patron donc, euh, de lui avoir accordé l'accès à la salle. Donc, euh, une fois le patron lui a promis, donc euh, lors de son dernier combat, si tu gagnes, bon, je te donnerai un abonnement gratuit de un an. Donc il a gagné. Donc, euh, chose promise, chose dite. Donc, euh, il s'entraîne ici à la salle un an. Donc, euh, lui, c'est un lutteur très dynamique euh, dans le sport. Donc il se donne tout le temps à fond, il donne le meilleur euh, de lui-même. Chaque fois, il dépasse les zones de confort. Donc, euh, vous l'avez vu même euh, dans les exercices. Donc, il fait chaque fois ce qu'on appelle euh, des lifts, des répétitions jusqu'à jusqu'à en mourir, comme tel que le nom l'indique euh, en anglais. C'est-à-dire répéter euh, à fond jusqu'à ce qu'on ne peut plus répéter, ce qu'on exécuter le dernier mouvement. Donc, vous l'avez vu dans tous les exercices qu'il fait. Donc, il donne tout. Donc, euh, vraiment, nous l'encourageons et nous lui souhaitons le meilleur euh, dans l'avenir, les jours à venir, qu'il qu soit un grand lutteur, un champion, qu'il gagne euh, le trophée roi des arènes et que d'autres perspectives s'ouvrent pour lui, voir le MMA et autre chose aussi. Vraiment, nous l'encourageons et nous lui souhaitons bonne continuation. waaw wolof benn baat rek mooy li mu root fii ci salle bi yaakaar nga ni doy na sëkk pour mu dem yóbbu ko géew waaw moom nag entretien yi moom franchement parler moom da koy joxe bu baax voilà salle bi moom day ñëw entraîner bu baax aussi bu demee géej aussi la même chose ak contact moom xamul caaxaan entraînement moom bu xesee ba ñëw day dem ba jeex voilà parfois day entraîner fii saawaay day entraîner léeg-léeg mu entraîner bay wàccu laa wax parce que day dem dem dem dem dem dem ba le maximum moom daal tant que mu ngi sentir am na énergie ci yaramam daal na dem ba jeex quoi dem ba vidéo quoi franchement moom jàmbaar la bu fekkee yàlla day fay entraînement rek yaakaar naa ne franchement moom chaque fois kanam rek lay jëm quoi chaque fois kanam la jëm ndax entraînement yi du ko caaxaanee quoi. voilà. ok merci beaucoup. ayca jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ni nga xam ni moom lañ leen toppalee ki nga xam ni moom mooy Gandigal euh, ñëw nañ ci salle bi euh, jël ay entraînement mais waxtaan ak coach sam vraiment ci ni nga xamante si nii noonu lay waajalee combat bi mais ñu fekk fi keneen ku nga xamante si nii rek euh, mbokk la ci moom di xaritam mais sës ci moom te di ko jàppale kooku moom mooy euh, le grand dañ koy bàyyi rek moom Sadibou mu nuyoog téléspectateurs yi bu ko defee rek euh, ñu waxtaan ak moom ci ki nga xam ne moom mooy mbër mi di Ousmane Gandigal Sadibou ñu ngi lay nuyu bu baax. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bon di leen remercier ci seen teewaay di leen wax ni ñu ngi leen di dalal jàmm daal incha allah. mu mel ni tey dañu ñëw seet si Ousmane Gandigal euh, fi nga xam ni moom mooy salle bi euh, daja fi ak yow te nga nekk koo xamante ni kenn nga ci moom euh, yenn kàddu rek ngay njëkk yëkkati jëmale ko ci champion bu mag bi di Ousmane Gandigal. waaw li ñuy yëkkati ci moom daal mooy suñu rakk la boo xam ne mu ngi nekk ci yoonam di góorgóorlu yàgg ci am jom di di ci góor góorlu donc mu nekk suñu rakk nag boo xam ne dañ ko yàgg fonk yàgg ko téye te it di ko jàppale. comme niñ ko defee ak ñeneen ñëpp parce que it àdduna moom loolu moo fi nekk ku nekk ci la nga yëngu rek di nga ñaan yàlla gis ay nit yoo xam ne boo soxlaa ñu taxaw di la jàppale di la dooleel te suñu rakk la nekk doomu mbuur nekk doomu dëkk bi kon mënuñu lu dul moom mu nekk ci dëkk bi ñu ñu nekk ci dëkk bi kon mënuñu lu dul teg ko loxo te jàppale ko te loolu moom je pense que ni c'est lu normal la lu jaadu la mu mel ni daf la fonk lool euh, parce que li ñu mën a wax rek mu ni dinañ ñëw fekk la fi nga xam ni moom mooy sa dëkkuwaay ndax jàppale goo xam ni yaa ngi ko koy jàppale mais combat bi nekk combat phare nekk combat boo xamante si ni mën na ni capital la euh, ban yàpp nga koy yàpp rek euh, ci combat bi. <laughs> waaw nga weer moom lu yàpp li ñuy wax rek àdduna moom ku nekk la nga ne moom. nga xam ni yow lii mooy sa yoon lii mooy sa liggéey pas-pas bu ak jom jang cee def yow yaa ko xam nga ne ca moom ndaw la ñun ñuy ndaw. ñoo bokk benn génération fulla gi ñu am suñu liggéey ba di ci ñafe ba toll fii ñu si toll tey ba nit ñu xam ñu ci moom ci yoon woowu la nekk te ci loolu lañ koy ñaax j'espère que moom xam na ci li mu jëm xam ne li koy xaar moom mooy def li ko war rek après li ci def nag ci loxo yàlla la nekk quoi. mu mel ni dafa am société bu nga xamante ni bari na lu mu koy tudd euh, muy société boo xam ni euh, euh, Dabakh construction noonu la tudd mu bari lu mu koy wax lool société boobu dafa mel ni yow yaay njiit la. waaw waaw waaw société bi Dawax construction c'est boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 2004 moom ci li muy yëngu mooy lépp lu jëm ci bâtiment ak euh, immobilier lay yëngu donc euh, boo gisee li waral mu koy tudd lu bari mm, yëfam la parce que sama yëf yëfam la kon donc amul discrimination par rapport à ce sujet là ñoo bokk ci lu ñu nekk ay ndaw la ñoo bokk fu ñu dëkk. li ëpp solo mooy respect bi ñu amante mutuellement bi ñu am man je pense que loolu moo waral lii yëpp tey quoi tiim ay mic écran di wax télé nii sax lu ci bari dama koy daw kenn du ma ko baruma lu ma ci génn parce que bëgguma ko bëgguma sax nit ñi di xam li li moom mooy wax lu bari rek ci Sadibou nii Dabakh Construction nii baa xam na rek mënoon na ni ah bari na ñu koy jàppale maa ci gën a tuuti ah kon de bu amee benn cër boo xam ne tey jox na ma ko man cër boobu rek laa ko mën a delloo mënuma ci def leneen lu loolu parce que loolu moo fi nekk àdduna bi mu am loo xamante nii rek moom ngay wàccee mooy Ousmane comme partenaire am nga euh, te partenaire télévision yi la Dabakh Construction fan la nekk ci biir Mbour bon Dabakh Construction moom euh, Dabakh Construction am na Ngaparou pratiquement mu ngi Ngaparou Dabakh Construction mu ngi Dakar te bientôt mu ngi Thiès incha allah ci kàttanu borom mhm. bu yegsee Thiès ñu dalal la. incha allah yow Thiès ki gëruma laa dëkk Thiès. <laughs> foo dëkk ci Thiès. <laughs> ayca jërëjëf ok jërëjëf merci beaucoup. Ah, bonjour monsieur Habib Sadat Nia. bonjour comment vous allez. nous sommes euh, venus pour le combat de Ousmane Gandigal. qui qui qui est ah, euh, c'est un gars que je viens de connaître ça fait euh, je pense que quelques mois et qui m'a présenté que c'est un Diallo, c'est un de mes assistants qui m'a préparé, qui m'a introduit à, à euh, qui s'est introduit comme un lutteur. Et il est un gars extraordinaire. Non seulement euh, c'est un gars qui m'a dit euh, sur le point d'aller commencer d'aller au euh, comment euh, de salon que j'ai bien bien apprécié là. Et aussi comme à moi-même Euh, j'aime très très bien les gyms et aussi euh, d'aller faire du sport avec lui, c'est quelque chose de très important. C'est un gars dynamique et euh, extraordinaire, bon cœur et aussi qui aime très très très bien le sport. Euh, c'est un gars aussi comme un frère de moi qui s'appelle Thio, aime bien le sport, tu vois, et aime bien euh, de se préparer. Et tout le temps, tout le temps sur le gym, et c'est quelque chose que j'adore sur lui. Ousmane a préparé un très très grand combat, euh, un combat capital. Et quel conseil a donné à Ousmane ah, pour, mon conseil, pour mon conseil, pour Ousmane, euh, tu dois, à chaque combat que tu as, il faut bien se préparer. Tu vois, et de le connaître chaque fois, chaque jour. Même lui, combien de fois que je l'ai promis, euh, je vais... Euh, fait des gemmes avec lui, lift weight, c'est ça qu'on appelle aux États-Unis là. Et chaque fois que je promets que je serai là-bas, je suis pas là-bas, mais lui, il est toujours là-bas. Même j'ai fait, euh, comment dire, euh, j'ai payé pour trois mois. Et je, je pense que je suis allé là-bas deux fois. Et tous les trois mois que j'ai payé, que je vois que Ousmane est toujours là-bas. Et j'espère qu'avec euh, its own euh, determinations, euh, ce sera quelque chose de très très bien pour lui là. Euh, mes conseils euh, pour la lutte, tu vois, c'est préparer. Quand tu prépares à 100%, et tu te présentes là-bas, tu fais ce que tu dois faire et je pense que qu'il sera là-bas avec le W. W veut dire euh, gagner, win, euh, une victoire pour lui.

On ne s'est pas euh, préparé à cette fois-ci, mais euh, une autre fois, je vais préparer avec lui là pour leur montrer quelques conseils, pour leur montrer quelque chose qu'on fait aux États-Unis et ça va permettre de l'aider sur ses prochains euh, Baax na wala. Okay. ce que tu mais, mais, mais bien sûr, le 29, euh, c'est le 29. On m'a dit que c'est que le 28, 20, 22, 20h, 20h. Et bon, bien sûr, là, et euh, je serai là-bas. Et je serai là-bas avec euh, deux de mes collègues qui vont à la main pour le supporter. C'est ça. L'essentiel, c'est être derrière lui et, euh, et qui sera là-bas bien préparé et de revenir avec, euh, avec victoire. Quel message Quel message que je vais donner à qui Oh, les messages qui vont venir là. Mais venir parce que ce sera quelque chose de grand combat. Surtout son determination, tu vois, et euh, venir supporter. Et euh, bon, on ne sait jamais. tu et venir euh, supporter, de, de, lui supporter. Et j'espère que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère que tout le monde va aider, euh, tout le monde va aimer. Et, euh, et ce sera pas un manque de temps de venir. Tout le monde va avoir un good time de cela. Inch'Allah. Euh, oh, ce serait excellent. Ce serait extraordinaire. Ah, ça, ça, Oh, ce serait pas bon. Ce sera, je serai, euh, comme je dis là, je suis toujours euh, derrière lui. On est behind him. Je vais le supporter à tout partout, tout, tu dire que de le bien préparer une autre fois sur le plan physique, sur le plan euh, euh, des vitamines, des bonnes vitamines, sur le plan de comment se faire pour se préparer et sur le plan aussi technique, tu vois. Et euh, Inch'Allah, euh, une autre fois, ce sera quelque chose aussi d'extraordinaire. Merci, je serai là-bas. Ok. Merci Habib Sadat. Nya. Merci, merci à toi aussi. OK. Merci.